jëme ko ci doomi Sénégal yëpp ñu ci réew mi ak ñu bi jëme ko itam ci adduna bi ndax adduna bi léegi si yeboo nga ni village planetaire la virus bi ku ko gis doo weddi loolu ndax ca Wuhan la lañu ni fa la soqi ko yàlla xam ca Chine waaye lënd na adduna bi ba ñëpp di jooy di yuuxu di xaatu ku ci nekk ñaan nga yàlla wala ci la nga gëm jóge ca ne dañuy wuti lu nekk luñ koy mën a saafara te terewul tey la gën a faagaagal nit ñi kon ñun ñëpp alalu yàlla lañu yàlla nañu yàlla teggil mbas mi noonu la ñuy amee crise ci adduna bi ci barab yu bari yooyu dem noonu lañ ko amee tey ci senegal ak feneen fu dul soo demee ca Oromo ya ca Éthiopie nooru Éthiopie yaa ngi fay dégg problème yi am diggante Éthiopie ak Érythrée ak Soudan soo ñëwee fii ci Sénégal gis nga temps yi yëpp li fi yëngu ci ay crise yoo xam ni tax na ñëpp tiit ñëpp jàq soo demee ca Mali kazalika noonu la ñu gisee problème yooyu ca désert bi diggante mu mopti ba Tumbuktu ak nooru Mali noonu la ñu gisee ci pays du Sahel moo tax G5 du Sahel taxawoon loo xam ni jaaxal na ñëpp lëmb na Afrique gii nga xam ni dara waru tolloo nekk seen bëgg-bëgg ak seen yéene ak seen yaakaar du dul jéem a développé seen réew te développement mënul am maanaam sëbb kenn du ca ji sëbb buy tàkk kenn du ca ji da nga koy sotti ndox ba mu sedd guy te moo di jàmm ji ji li ji cheikh alxaaji Seydou Nourou Tall al imam wax léegi mooy jàmm mu jóge ci Thierno Bachir mooy jàmm ji nga xam ni moom nga wax léegi Cheikh Ahmadul Badawi Mbacke mu jóge ci suñu kilifa ga nga xam ni mooy sëñ Muntaxa ni ko Thierno Bachiru doone ni ko sëriñ Mouhamadul Mahi Niass doone ni ko sëriñ Babacar Mansour doone ni ko Thierno Ahmad Tidiane Ba ca Madina Gounass doone ni ko euh, le le le chef de l'église sénégalaise doone ci biir réew mi yàlla jox ko boobu cër ci wàllu ñi nga xam ni dañu aju ci diine chrétien yi hmm? ni ko euh, alxaaji abdullahi cawlaay doone xalif général de Layène ni ko góor gi ni ko waa kër moom maam bu kunta njaasaan doone ak suñu waa kër maam amari ndaak sekk ca cena ba xalif général ba nekk noonu la ko waa lew na ñaseen doone muy kër baay xalifa ñas radiallahu anhu noonu la ko waa kër baay alxaji abbas sàll kër baay alaaji maajoor siise kër baay sëñ haadi ak kër yi nga xam ne ñoo aju ci euh, confrérie yi suufi yi fi nekk ak itam ñi nga xam ni suñu jàppul ci confrérie yi itam sénégalais la ñu comme ñun muy jamaat islamiya yi fi nekk muy ibadurahman muy falaax muy yeneen xeetu groupement yoo xam ni tey ku ci nekk démocratie bi dox ci réew mi moo tax nga wane ni man nii laa gisee l'islam kii ni nii laa gisee christianisme ñii sax nekk protestant ñi nekk catholique waaye ñun ñëpp ak ñi nga xam ni jàpp ñu ci benn diine tey dama naan ku ni laa ku man atte laa gëmuma dara ma ko ba tey ndax yàlla la bind te bokk nga ci njabootu yàlla alaalamiina ji yàlla wax ci alhamdulilahi rabbil alamin bokkul nga ci njabootu yàlla gi nga wax gi yàlla wax ci yonent bi saai sallam ne ko dama la ci ñëpp ethnie yeeg groupe ethnique yeeg ñi am melawu ñuul seen der ñuul wala seen der xonq wala seen der seen der mboq wala seen der weex kenn gënul kenn kuy woote ni yaa gën kenn da nga eggagul ci yàlla yàlla nee na inna akramakum indallahi atqaakum kenn warul am complexe sa diggante keneen ki gëm ci yàlla yàlla nee na du ko xam ne fii tribunal bu mag bi ëllëg la su ngeen ñëwee ba teer ku ci nekk naa la teertu questionné la ba nga foog ni yow rek laa bindoon ci kaw suuf bindu ma woon de milliards d'habitants sur terre kon kenn rëccul yàlla wa indahu mafatixul xayb laa yaalamuha illa huwa wa yaalamu ma fi lbarri walbaxri wa ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha wala xabbatin fi zulumaati l ardi wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin yàlla nee na atome bi gën a tuuti dans les fins dans les fins fonds des océans maa ngi koy contrôler ci sama omniscience sama omnipotence sama omniprésence kon nit ñi nañu xam ni kenn moom lañ yàlla moom te ñun ñëpp noonu lañ ko xamee moo tax ay nit a ngi indi ay sikki sàkk nan diine gi seen yoon warul nekk ci politique seen warul seen yoon warul nekk société wala ci nation dañu juum yàlla dama bind aadama yéen ñëpp ci aadama laa leen jëlee ak awa ba mu neex ma ma def ci yéen ay race ak ethnie ak langue ak culture ak groupement yoo xam ni bokkuñu waaye seen cosaan benn la ku ci nekk nag mën nga ni man da nga li ma gëm mooy l'homme de Néandertal l'homme sax l'homme sapiens ak yooyu gëmal demal waaye yàlla ñun ku gëm l'islam gëm le livre saint muy christian muy muy la bible et le Torah et le Coran xam nga ni yàlla nee nag ku ci nekk am na fu ma jaar yow kon nag su dara ganee suñu réew mii ku ci nekk am nga ci responsabilité ak foo mën a nekk noonu la ko Cheikh Ahmed Badawi waxe léegi mu jóge ci Serigne Mouhamadou Mountakha noonu la ko Thierno Bachir waxe jaar ci Thierno Madani egsi ci Thierno Saïdou Nourou taal suñu doom ji di doomu alxaji Baba Lamine xaw ma ndax Baye moo ñëw wala déet Baye Ibrahim ah moom la Baye Ibrahim ñun ñoo ko tudd ca Caire dafa la Lamine di jàng ñoom euh, Cheikh Muxtar Sidi Muxtar boo xam ni bi nga xam ne mooy doomu mooy doomu Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke ibnu Xaadimi Rasul ak ñoom euh, waa kër Yunus Haydara ak alxaaji Malick si Maodo bu alxaaji Abdoul Aziz kenn Boubacar si bàyyi Cheikh Omar fii nekkoon fa bàyyi ñoo ko ngénte ca Caire kon suñu doom la muy doomu soxna Ndey Awa Jatara mu baax ma yann yàlla guddal fan Baba Lamine hmm. ak magam jii di suñu mag bi suñu kilifa di Cheikh Mouhamad al Mahi ak kilifa yi ma tudd yëpp li fi am ci Sénégal bu kenn ni sama yoon nekku ci ñëpp ci am droit wax ndax xubbul watani min al iman xadis bu wér la xubbul min al iman yonent bi sallallahu nee na nga am amour ci sa patrie bëgg sa réew bokk na ci liman te wax nga léegi defe naa ni Cheikh Seydou Nour moo ko wax kullukum raayin wala nga wax ko xadis bi wa kullu raayin masulun an raiyatihi képp ku mu kii yam rek berger la sàmm la te la ngay sàmm ëllëg yàlla dana la ko laaj soo ci taxawoowul soo ci taxawul woon na nga ca war a taxawee kaa bu mag bu metti lay nekk ca kanamu yàlla su lay punir kenn du ci mën dara yonent yàlla Muhammad sax su demee bay intervenir yàlla koy jox droit pour muy soog a intervenir yàlla koy jox don don du ma ñu droit nga donte la yàlla diggee na ko ak moom waaw suy intervenir yàlla dana bi yàlla dafa ni man zal ladi yashfau indahu illa bi iznihi yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum ci ayatul kursi yàlla nee na ana kan mooy mën a taxaw ëllëg di ñeme intervenir pour kenn te fekkul man ma jox ko autorisation jox ko feu vert wala carte blanche kenn du ko ñeme majestueux majestu majestuosité yàlla foofu lay gën a feeñe jalaadiyatuhu wa kamaadiyatuhu looloo tax su lii amee yàlla ku dellu ci bible wala nga dellu ci livre saint yi jóge ci asamaan wallahi alazim da nga ci gis solution yu bare bare yoo xam ni moo gën a wér solution Karl moo gën a wér solution wu Adam Smith mu gën a wér solution wu Nietzsche mu gën a wér solution wu Jean-Paul Sartre moo gën a wér solution wu n'importe quel philosophe ba penseur savant boo xam ni dafa judd ci biir deretu Adama ak doomam parce que yàlla moo ñu bind on peut jamais être plus royaliste que le roi lui yàlla du weddi boppam kon nag il faut savoir raison garder kon ñun nit yàlla moom nit am na ñoo xam ni ci nit ñi dañu naan man àdduna laa gën maa gëm ma yàlla yàlla ne seen affaire la ba ñu ñëw ci man ba ñu suul leen samay malaaka fekk leen fa wala ëllëg ma dekkal leen ressuscité leen